ba tey ñu ngi nekk ak Sankara mbay fii ci euh, Wasaare TV Sankara euh, ñu gis depuis bi ñu tëjee euh, ki nga xamante ni moom moo di Assane Diouf xamante ni moom tamit da doon xeex ak askan wi ah yéen ñëpp daan nañ leen dégg ngeen di wax ci moom ah depuis boobaak léegi dégguñ la nga wax ci dara lan ngay lan ngay wax ci loolu noonu. non man kay maa ngi ci boobu ba léegi wàccu ko benn yoon mais li ma ci mën a wax rek mooy Assane Diouf c'est un sénégalais. te wax naa ko fi barki démb am na fan yee benn journaliste bu ñu jàpp ñu envoyé ma message ne ma wax ci ma ne leen déedéet parce que bu ñu jàppee doomu aadama loo xam ne normalul ñëpp ko war a kaas parce que dafa nekk loo xam ne ku ci nekk mën na mën na ñëw fëgg sa buntu kër you know Assane Diouf man waxuma kenn ku de ku wàcc yoon bu ñu la teg ci yoon ku wàcc yoon mën nañ laa teg ci yoon mais bu mu neex Sankara Mbaye rek bu ñu la waree tëj 6 mois mu neex ma rek parce que samay émotion la ma ñëw tëj la deux ans la justice doit être là pour tout le monde mais pas pour dafa neex ma Samba war a dafa neex ma Demba ma tëj ci kaso bi loolu mooy loolu moo dal Assane Diouf waaw. te mais mais mais mais dafa neex ma Samba moo tax ma ñuy nangam a naam lan mooy dafa ma Samba kan la neex euh, ndax te tamit Assane Diouf moom moo nekkoon di di saaga président de la république di wax yoo xamante ni euh, jaaduwul tamit ci benn côté bu ñu waxantee dëgg. waaw dafa nekk Kumba am ndey ak Kumba amul gis ngeen fi euh, votre deuxième vice-président de l'Assemblée nationale une institution bu taxaw di saaga ay ndey. kan laaj naa loxo yow gis nga ñoo ko gisandoo. non non nga ko gis te man du xam kan. waaw baax na ah, amin man ñi may man. mais man Sankara dama bëgg suñu waxtaan. ka euh, nga nga ka nga ñeme ko. di di di wax man su may waxee yow Sankara Mbaye laay waxal dama naan Sankara Mbaye def na lii ak lii ak lii ak mais pourquoi pas nga mën a jël sa responsabilité ne diw mi def na lii saaga na wax na lii naa nga waaw. yaa ngi woon fan sax. Sankara bu ma fontoo de Sankara moom Sankara bu ma fontoo de. mën a wax li ma mën a wax daal mooy. Ah. Euh, Assane Diouf c'est un sénégalais c'est un africain. kan kan rëy ma bul bul bëlëfe sama xel bi sànq dama mënoo dox sama bopp bi toog lu jékki-jékki def yëfu Michael Jackson yooyu taxaw wàccee sa verre ba mu neex la nga ñëw naa ma yaa ngi woon fan. dama ne kan moo kan nga dégg nga ne moo moo ma doon saaga ki ngay wax sànq kooku kan la. mais xanaa doo suivre actualité Sénégal vice président à l'Assemblée nationale kan la. kooku mooy kan. waaw ah, kon nañ jàll ci beneen. yow yaa ko tudd doo ko. man de tudduma turu kenn. doomu géwal laa damay kaf damay ree rek ne li ma mën a wax mooy. mënoon ngaa yam ca kaf nag. <laughs> non mais dama tudd yaa fi tudd vice président de. man tudd kaf mën ngaa ree mais li nga xam dafa xew sa dëkk daf la war a intéressé. Mm. parce que bottom line àdduna bi xam nga lépp lan la. bu ñu demee càppaandaw ga loolu moo am inter important. à l'heure du crépuscule. Mm. dinañ kaf dinañ fecc dinañ ree dinañ def comédie. mais à l'heure bi du crépuscule. Mm. suñ dañoo am njaboot. à l'heure du crépuscule lañ lañ mënal sénégalais yi. c'est ça le plus important. léegi léegi léegi léegi léegi yow Assane Diouf boobu noonu nga xamante ni moom nga bëggoon wax euh, ci nga ci nga doon wax nii léegi léegi euh, yow léegi yow ban ban ban appel nga ci lancé ak tamit yow ndax da ànd ak moom euh, ci li mu def parce que yaa ngi ne am am na ñeneen ñu def comme li mu def kon yow da nga bëgg wax ni Assane Diouf li mu def waruñu ko ci tëj da ko waroon bàyyi mu dem wala. non man bu dee saaga yi ngay wax man d'accord may saaga parce que man du ma saaga man du ma saaga mais dama ne. mais yaa ngi défendre kuy saaga. waaw waaw parce que mais kumba am ndey ak kumba amul ndey moo fi ne ATM boo mbéjee nit ñu tëj la 3 mois euh, sa nawle doomu diw mbe nit ñu ñu def ko garde à vue bàyyi ko loolu daal lay wax kumba am ndey ak kuma amul ndey. yesaay kon xam naa duñ ci sori euh, ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax Sankara mbay comme euh, nangu woo xuus ci biir dëgg-dëgg mais yaa ngi jàppale ki nga xamante ni sa nit la sa xarit la ngeen xamante nga doon ko jàppale loolu am nga ci plein droit ñu ngi lay jaajëfal. jaajëfay teem thank you.